salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna dal leen ak jàmm ci seen beneen euh, nouveau numéro bi nga xamante ne mooy seen émission yoonu ndaw comme ni ma leen koy waxee nag yoonu ndaw bàyyiwul kenn yaa xam woykat bi fecckat bi taasukat bi jaaykat bi ba yow nga xamante ne yaa ngi ci euh, série di bay sa waar ba na tey ñu ngi toog ak ki nga xamante ne mooy xos xos bu idole lu bu jumaan moom la ñu dalal tey suñu émission bi nga xamante ne mooy yoonu ndaw kon du ñu def lu dul bàyyi xos mu daal présenté wu nuyoo ak yéen ñi nga xamante xamante ni yéen a ñuy seetaan xos lay nuyu di la ziar. waaw soxna Marina maa ngi lay maa ngi lay ziar di la nuyu bu baax. Mhm. xam di di la remercier ci invitation bi aussi di mhm. nuyu waa Sénégal. Mhm. di nuyu téléspectateur seen buzz. kon nag. <laughs> parce que commencé bi nga may wan sa bopp quoi. non <laughs> <laughs> baax na maa ëpp jàmm de. Euh, xos ñu xos tuuti daal di jàll nga wax ñu euh, maanaam kan mooy xos euh, dans la vie dans la vraie vie. waaw xos la mooy benn koo koo xamante ne doomu yaayam la ko doomu yaayam waaw man doomu yaayam doomu yaay la xos benn baay faal koo xamante ne dara safu ko. Mhm. wàcce wàcce boppam xam ne xam ne du dara doomu aadama rek la ko. Mhm. waaw. lu tax nga ne doomu yaayam. doomu yaay mooy ko man sama yaay laa xam xaw ma kenn ku dul sama yaay. dëgg waaw moom rek laa xam ko. d'accord mën nga ñu wax avant ngay dugg ci série bi nga xamante ne mooy Idole fi nga xamante ne daanaka fële la ñëpp xamee lan nga doon def avant loolu. waaw dama doon jàng en même temps di liggéey ko dama doon jàng en même temps di liggéey balaa may dugg ci série Idole bi am tarbiw naa si am naa jaar jaar. Mhm. parce que man. si séri yi sama benn cousin bu ñuy wax Sada Diop. Mm-hmm. moom moo ma si dugal. boole ma ak Babacar Waale muy Chérif Mal. Mm-hmm. moom la ma booleel donc euh, après si laa doon nekk ak Chérif Mal di def ay atelier. di ñuy ànd ay Douta Seck. Mm-hmm. am tarbiyu naa si daal balaa ma siy dugg carrément ko mhm. euh, lan moo la lan moo la dugal ci ci ci euh, idole maanaam sa intégration ci série idole bi nan la demee c'est par casting ou bien nan la demee ba nga dugg ci. non man moom defuma casting quoi. Mhm. peut-être que destin la mbirum sunu borom la. at euh, ginnaaw yàlla peut-être que si si kiwu Chérif Mal la ko la ko jaaralee. Mhm. mooy que benn samedi lañ toogoon man ak moom mi ne ma dimanche bi nga ñëw gunge ma tournage. bon may yeewu dimanche bi ay sept heures du matin gunge ko tournage. Hmm. toog ak man xaw ma woon ne koo koy réalisateur muy évoqué maa ngi koy nuyu de passage. Hmm. may toog moom di waxtaan ak moom di kaf moom tout ça comme nu ma mel. Hmm. wàcc sama bopp je compose avec tout le monde si la ma bëggalee boppam xam gaa yëpp bëggal ma seen bopp. si la si film d'accord bi la jëlee ci film bi jox la benn rôle boo xamante ne mën nañ ne euh, yombul parce que rôle buuju maan lañ ne jox suñ ne buuju maan mooy ki nga xamante ne peut-être amul mbokk amul dara ci mbedd bi la la dëkku foofu mooy foofu mooy léppam mm-hmm. bi ngay interpréter rôle bi nan la demee woon waaw yomboon na benn instant mais tam tamit métti woon na ko métti woon na mm. carrément parce que rôle bi dañ ne benn buujumaan intellectuel sensible koo xamante ne xam nga buggul ku ko mere. Mm. gaaw a jooy la xam nga yërmande la quoi. d'accord waaw. <laughs> du du le temps sax may jooy moo may xam message message bi ngay joxe. mooy mm-hmm. que xam peut-être que da koy laaj jeu bi da koy laaj parce que. soo mm-hmm. xoolee event pro idole. Mm-hmm. affaire de caaxaan amu fa quoi. si donc da liggéey xam carrément. ñoom loolu la xam quoi. donc si laa fa nekk parce que rôle bi suñ la joxe benn rôle boo xamante ne moitié rôle bi yëpp yow la. donc dina xaw a yomb benn instant quoi. Mm-hmm. waaw. d'accord ci biir euh, série bi nga xamante ne moom mooy Idole euh, daanaka mënoo jouer peut-être série ba mu jeex amoo benn benn séquence boo xamante ne moom moo la ci gën a marqué est que mën nga ñu wax ban séquence moom moo la ci gën a marqué ci série ci série bi. waaw mooy yu ma si gën a marqué mooy ba ñuy yóbbu Chérif si si. si tata aliment quoi mooy seen kër. Hmm. waaw parce que parce que séquence bu ma touché la quoi. séquence bu ma touché la. Hmm. en même temps tamit séquence bu may bu may demee di seeti Chérif euh, si si bi. Hmm. boobu tamit. séquence bu ma marqué la quoi waaw séquence boobu. d' accord bu ñu déggee euh, ñaari séquence yi nga xamante ne peut-être ñoo la marqué ci biir série bi yëpp benn nit ki la ci moom ngay jouer muy Chérif Maal. Mhm. est-ce que mën nga ñu ñëwal tuuti sa relation ak Chérif Maal. waaw Chérif sama relation ak moom euh, ginnaaw film bi la ko de mhm. nature man maa ko bëggal sama bopp moom tamit mu bëggal ma boppam. Mhm. xam ma sama frère la sama lëpp la lu ma mënti di dugg ci cinéma ak lu ma mënti di dugg hors cinéma. moom dama koy xamal ko parce que sama sama lépp la moom moom man maa xot ba pare xam na sama yaay daf ma ko dénk ko d'accord waaw sama yaay daf ma daf ma ma dénk Chérif Mar muy Babacar Wali ci biir série bi nga xamante ne moom mooy euh, idole est-ce que am na ci ko xamante ne peut-être mooy sa acteur bi nga xam ne moom nga préféré wala sa actrice bi nga xamante ne moom nga gën a préféré waaw sama acteur moom mooy Chérif la moom moo nekk si <laughs> man mooy sama idole mooy sama lépp si film mhm. su fekkee jigéen ñi la mhm. man ñoom ñëpp samay xarit neen mhm. waaw ñoom ñëpp samay samay gaay neen ko mais du ñàkk ne am na koo xamante ne peut-être mooy joué loo xamante ne yaa ngi koy sentir wala mu joué loo xam ne leer na ne carrément kii fi ko teg mi ngi fa waaw muy Eva Eva waaw Eva Eva moom xam balaa may joué at lépp dañuy dañuy dañuy waxtaan ko mhm. waaw waxtaan man ak moom bu baax a baax. Mhm. xam nga elle me donne des conseils tout dañuy communiquer te ba pare jeune. macha allah quoi mhm. ba tey dañuy des si Even Prod euh, bu ñu jugee sa relation ak Chérif Mal dañuy génn tuuti si idole bi demaat ci beneen série bi nga xam ne peut-être mooy mars. mu am benn ndaw soo xamante ne gisoon nañ temps yële yàgg na benn euh, vidéo bu ñu ci net bi. bu ngeen doon photo wu yéen ñaar après quelque temps après ñu dégg ne rumeur que yéen ñaar bi na am benn relation boo xamante ne euh, <laughs> pareegu ma ngay ree léegi tontul <laughs> léegi tontul jarul ma parce que xam nga fi ma jëm kon waaw waaw léegi tontul <laughs> waaw kooku kooku sama bébé la sama lëpp la. Ah. muy muy coro ñu koy woowee si euh, si si biir mër imaan. Mhm. muy tamit muy muy muy nit ku baax koo xamante ne tamit xam nga. bébé la quoi. waaw kooku moom sama bébé la quoi sama sama lëpp la. bébé sama sœur la sama lëpp <laughs> noo kooku sama gaay la. leeral la góobo ba tey sama bébé la rek yem na leer ñun ñi xam Marina Marina xale boobu noonu. moom mhm. sama gaay la wala photo gars yi xam nga rek xam nga man moom ñu ngi may ñu ngi may jiiñ xale bu nekk yow gis nga rek. <laughs> ah parce que tu es l'ami des jeunes filles. Oh, no xale yee <laughs> xale yee la toog daal. ñu ñëw sa relation ak xale yi jigéen ñi nan la demee. carrément euh, xos boo xëyee toute une journée xos boo xëyee xale yu jigéen ñi topp xos. xos à tout tout tout le temps gis nañ ne ci série idole bi xos moo ci nekk koo xamante ne peut-être moom la xale yi jigéen ñi gën a bëgg. sa relation ak ñoom lan la ko waa xam nga tamit benn instant lépp sunu borom la. Mm-hmm. ba pare nit ñi suñu la bëggalee seen bopp te yàlla tax rek. Mm-hmm. yow da si dool di si sant yàlla quoi. Mm-hmm. waaw ba pare ñoom tamit ñu nekk samay jigéen waaw ba pare du nekkuma nit koo xamante ne damay dama damay damay tijji quoi. lu ma mës a tëj. bu ma bu sa tëj parce que dañ nekk si benn milieu boo xamante ne. Mhm. waroo da nga war a wàcc ko. Mhm. sa bopp. parce que ki bëgg yow gënoo ko. Mhm. que su bëggee te yàlla tax rek yow wan ko ne ko xam man maa la gën a bëgg ko. wàcce sa bopp xam di waxtaan ak ñoom bu baax. nit ñàkkul na yaa ngi jël ci booy. non waay góor yàlla laa de man booy laay <laughs> ah, waaw man. xos ji topp ñëpp boo naree jël mbaa non du ma jël ñëpp sax mais. mais da nga jël quelque rek. waaw. kon gis ngeen kii jarta topp. ndax da ngeen bari. non du loolu sax mais xam nga man xam góor moom après ñi ne ku muy jigéen quoi. d'accord. waaw léegi marié goo. non non. ngay xaar puisque xale jigéen ñu ngi la topp yow yaa ngi jël la teree marié. non mais xam naa c'est pour bientôt ah incha allah. incha allah waaw. xos annonce son mariage pour bientôt xale xam naa ne xam naa ne moom. Hmm. dañuy jég saa rek. <laughs> mu tëmb ah. waaw non xos boo marié xale yi jigéen ñi am déception dina bari de. non du déception sax kat la de. kat waaw kat kat kat kat jabar la. lan wax la góor xanaa nga jël benn jël ñaar après. non ça rek mun naa mun naa jël benn yem si benn bi. Hmm. waaw mun su yàlla tuddee ne dama war am ñaar wala quatre tamit dama ko war am sama hmm. destin mënuma ko échapper. d'accord. xos mm-hmm. ban genre de fille la choisir dans vie. man jigéen bu ma gën a gën a bëgg mooy koo xamante ne dafa jàppee boppam du dara. Mm-hmm. waaw. jigéen boo xamante ne moom jigéen bu exemplaire la doon ko mm-hmm. une fille exemplaire am dignité jullite. bëgg boppam. man damaa bëgg jigéen bu bëgg boppam ko coquette. <laughs> c'est important loolu nga wax loolu kon xale jigéen yi yéen laay waxal ko puisque yéen yéen a choisir xos bëgg ko def ko fii mais mi ngi waaj takk jabar choisir na ba pare moom instant xol bi jël nañ ko da ngeen toppaat ci bi xaaraat keneen wala ma jox leen xalifa ci suuf. <laughs> xalifa ah. jël. non xalifa dina ci jël. non xalifa <laughs> kon dal leen jàmm ah. man damaa bëgg jigéen bu am fit. maanaam. Ah, su ma nee jigéen bu am fit mooy. ku xam lu mu bëgg ko du tourner autour du pot. yéen daal da nga bëgg jigéen boo xam ne bu gisee xos maanaam naan ko xos lu amee lu ma yëg ci koy wax. waaw man parce que man su ma amee lu ma yëg si si nit dama koy wax ah, man du ma hésité de. xos ñi yëg ci yow lépp lu bari buñ la ko waxee mbaa di nga mën a àngu ñëpp. non du ma mën a àngu ñëpp dama kaa mën doomu aadama laa bëgg man man taaw laa rek sama yaay amul doomu jigéen xos dina ma rey. benn waaye yow si. yow benn nga jàppaatoo li nga. am naa ñaar am naa ñaari rak si yaay at sa ñu ma bokkal papa. d' accord. Mm-hmm. ok dama bëgg nga wax xale jigéen ñi est ce que doo leen dox sa numéro téléphone. waaw mën na nekk de. wala ma commencé. waaw commencé. xos doxeel direct en direct sa sa numéro téléphone xos ma tey laa xam ne am nga fi wala amoo fi. 540 la at <laughs> quelque. te xam ne xos moom instant bi départ na xos ñu ñëw ci sa euh, dañuy des ba tey ci sa vraie vie. Mm-hmm. mën nañu wax xam euh, dans ta vie lan moo la gën a metti wala yan jaar-jaar ñoom ñoo la gën a metti ci sa vie. bon lu ma gën a metti sama vie mooy xam que nit ñu comprendre duñ ne ci film bi lu may su may jooy lu bari. wala émotion bi di ñëw si lu bëri naturel. Mm-hmm. c' est que parce que soo xoolee si biir séquence yi saa yi su ma tàmbalee rek même su nee coupé sax damay continuer ko parce que moi ci lu ma joué yëpp dama ko dund ko mm-hmm. d' peut-être que nit ñi ñu ngi koy doo xam. Mm-hmm. moo tax affaire bi dafa dafa xaw dafa dafa naturel quoi. li ma lu ma joué yëpp dama ko dund dama ko jaa am jaar jaar ak sama yaay. xam nga moo tax su yu bëri rek su ma commencé jouer yenn séquence rek daf may. daf may fàttali si yu si yu bëri quoi. est-ce que mën nga ñu ñëwaatal tuuti si jaar jaar boobu. dëkk boo xamante ne yow soo nekkee si mbedd bi duñ la respecté duñ la calculer soo xoolee bujumaa ni. Mhm. gars yi léegi lañ leen commencé bàyyi xel. Mhm. gars yi leen di romb ñu leen di dàq. Mhm. wala di leen jàppee ay bandi affaire yooyu fekk xam nga dëkk bi. tant que deewoo wala tekkiwoo kenn du la dimbale ko mm-hmm. Sénégal xam nga dañuy bàyyi ba nga dee ñu naan dañuy indi ay nag wala mm-hmm. ay affaire pour mm-hmm. pour pour dimbale la quoi ñuy dimbale nit ñi si buñ koy soxlawee si buñ koy soxlawee quoi loolu mooy loolu mooy loolu moo loolu moo raisonnable quoi mais doo bàyyi nit ki ba mu dee ba pare nga naan da nga koy dimbale loolu noonu man sincèrement parlé maa ngi koy masu ko peut-être boobu noonu moom moo waral euh, chaque fois peut-être damay dégg ñu ñu naan xos boo ko bëgg a jooyloowee rek tuddal yaayam. ñoo en plus sa présentation yaa ngi naan euh, doomu yaayam mu mel ni sa relation ak sa yaay dafa nekk loo xamante ne c'est quelque chose boo xam ne dafa dafa dafa dafa euh, comment fragile quoi. waaw dafa dafa dafa fragile parce que man sama yaay mooy mooy sama lëpp mm-hmm. waaw sama yaay amul amul doom bu jigéen. d'accord fils aîné la quoi man maay mm-hmm. taaw. ok donc chaque guddi. man damay résumer sama yaay lépp lu ma des si jour bi. <laughs> lii nii suñu paree. Mhm. guddi dinaa ko def naa émission bi def naa lii def naa lay. xam lii laa def. parce que man lu ma munti am man sama yaay la quoi. Mhm. am sama man su ma amee doom sama sama doom yëpp sama turu yaay da si nekk. Ah kafuma sax. xos nag kaay nañ ko waxtaanee man ak yow <laughs> xos <laughs> ay yéen xos mi lu ngeen wax ci moom tamit nan ngay amee doom tuddee ñëpp sa yaay waaye xos bàyyi ñu waay. ah mais man xos. saasi sama yaay saasi la tudd. d'accord. waaw. kon xos mooy sa vrai nom. déedéet. c'est pourquoi xos. xos depuis ma xos <laughs> <laughs> sa turu yaay la xos. turu xale la yow noo tudd yow miy toog doon tudd puisque instant bi amagoo tur wax ni tudd xos. wax ñu ko waa seen bës yi bi ñoo xam xos nu mu tudd. bàyyi ñu loolu tamit xos wax ñu noo tudd rek. xos tudd rek xos saa si. sama tur am na am na am na Mohamed. na Mohamed. ak lan. ak Diop. jeex na Mohamed Diop. nan ci Seydina am. laa tudd hmm. jeex na. Mouhamed Diop laa macha allah tarkaal la ñu gën nga xam ci xos saa si xos en tant que Mouhamed nga jël sa tur naan xos lu waral turu xos. Hmm, non ku xam Sénégal soo yoree tur yu màgg yooyu noonu xam nga tur yu màgg yooyu nit mënu nekkee xale. waaw. ok torop sax <laughs> si. tëri bu loon nag. Mhm. mais nag dama damaa noppi. da ngaa cool quoi. waaw ah, dama calme ah, da ngaa ah, ci booy de. waaye mais cool naa si booy de. man <laughs> xos du ma rey. noonu rek xos maa ngi yow xam naa ne tey du yoom parce que la may dara. non gis naa ne doo may dara du ma que instant yi ay kii bi ngay jaay ay sedd noon damaa bëgg nga wane sa bopp wane yow yaay kan fii gis nga loofi fi baax dañ koy ngeer de. ay calme yii nii di <laughs> jël boppu gars yi. saa moom xoolal tey moom daj naa quoi. <laughs> ndax danga nga doon làmb daj nga. non tey moom daj naa sa bopp. mais naa ko wax xalifa su ma naa ko wax xalifa de. la <laughs> koy wax ah xalifa moom il faut ma plaindre. ko. xos ñëwal ñu tuuti ci ci ci xos. Mhm. parce que euh, comme li ma wax sànq xos dafa nekk peut-être koo xamante ne genre ñëpp ko xamee. tey rek bi may bi may bi may ñëw ne xos laay tourné dañ ne waaye ji dafa cool mais dafa gaaw a jooy. Ah. pourquoi dafa dafa dafa gaaw a jooy lan la lan nga dund lu tax à chaque fois peut-être bu ñëwee ci sa sa sa xel nga jooy lan la. du du du du loolu sax mais c'est xam nga soo bëree yërmande bi. c'est que yàlla moo koy moo koy def si doomu aadama. Mhm. man su ma la gisee yow nga am lu la métti te man mënu ko faj. d'accord. xam nga daf may métti quoi. Mhm. peut-être que gars yi dañuy naan bi Sénégal suñu gisee nga joué benn rôle ñu ne dafa yamba day jooy day tiit mhm. mais du nu du nu recherché yow ban message ngay ngay ngay joxe ko ngay mhm. ngay joxe parce que man mënuma toog di jooy nii tout le temps tout le temps. comme ça rek di jooy rek. non mënul non mënul nekk non man. di nga xam ne mënoo jooy sax man bàyyi naa jooy rek soxna si maa la wax lii. Hmm. Euh, xos ñu ngi peut-être mën naa ne suñu émission li ci li ci des daanaka euh, bareetul. Mm-hmm. waaye ba tey dañuy desandi euh, laaj la tuuti en tant que acteur parce que jamono ji gis nañ Sénégal ñëpp a bëgg siiw kenn ku ci nekk yaa ngi jug bëgg a feeñ tele ah ñii ñu ngi bëgg a dem defi defi série surtout série yi léegi ku jug rek bëgg a nekk bëgg nekk acteur wala actrice ba am na ci ñoo xamante ne da leen di jaay jaral ñu def ay bad buzz. pour mën a mën a mën a intégrer ci biir milieu bi lan ngay wax ñooñu. mais nañu def ndànk rek. parce que xaj neen si de. Mm-hmm. waaw xaj neen si de mais nañu nañu nañu def ndànk ba pare dem tarbiyu bu baax a baax. Mm-hmm. am tuuti am tuuti patience quoi parce que si mm-hmm. millier bi parce que cinéma nekk na loo xamante ne du ay affaire de caaxaan quoi. waaw du du du Marina siiw na. dugg na si film yi gars yi ñu ngi koy bégee affaire yooyu. mais yombul ah. si. yombul gars yi dañu war a dañu war war a def ndànk parce que cinéma bi nii dangay xool ñaata acteurs fi nekk. Mm-hmm. bëri na. trop. day jeex. Mm-hmm. buzz yi day jeex. Mm-hmm. yenn acteurs yi tamit ñu wàcc quoi. waaw. doomu aadama. man lépp moo star dama koy bañ. Mhm. parce que benn star moo am muy yàlla suñu borom. amul beneen star bu am. Mhm. balaa nga xam ne doo dara nga làqu. Mhm. doo munoo sa bopp dara. tu vois. ñoo lay defaral lépp. mais gars yi xam nga xaj nañ si quoi mais nañ def ndànk jaar. tuuti sec wala dem école des arts. def ay formation tuuti yàlla rek a. waaw doylu. quoi doylu kese li nga am. mais est esprit boobu sénégalais am tamit. waaw mais soo doyluwul da ngay sonal sa bopp. Mm. parce que soo yoree téeméer man ma yor cent bëgg teg sama sa téeméer yi damay sonal sama bopp. naa mm. yem sama cent franc yi su ma amee deux cent ma xam ne deux cent la am su ma amee ma xam ne téeméer laa am. Mm-hmm. mais gars yi nañ suturaal seen bopp mm-hmm. quoi. doomu aadama yow yaay suturaal sa bopp. Mm-hmm. li nga am nga mu doy waaw. parce ñaata ñaata message je t'aime ngay recevoir par jour. par jour. moo ko de. bëri na. waaye bon ay ay à peu ay deux cent des deux cent messages je t'aime. par jour deux fois deux cent la. message je t'aime. je t'aime. déedéet. <laughs> yow deux cent messages je t'aime lay recevoir par jour. <laughs> non deux cent messages je t'aime non dégguma la fay na nga wax ñaar. xos nangu rek yow xos yaa ngi toj dëkk bi yow kii kii état war na def liggéey ci moom de la ilaha illallah fii xos gi wax ak man su muy jaay innocent di toj dëkk bi. aywa bu ma dugal. 200 messages yu je t'aime la xos di recevoir par jour. non ñoo ko déggandoo. nee la fii la lépp di leere tey lu waaye doon jaay tey leer man loolu su ma ko doon recevoir naa am de. mais yow du xale jigéen ak yow nag. ah mi na de. waaw ah, moom a waral message yi di bari. waaw mais xam nga yi moom dañoo bëgg lu baax nga xaw a kii. gone yi bëgg lu baax sëgg waale jàllaale waale noonu. waaw des fois moom damay bàyyi mu jàll ko. Mm. bu dee booyu mool yi da ngay non man loo mool mool dama lay wan ne man maa la gën a mool na man. ah mool nii. ah man mooluma de. Sénégal xëy jigéen ñi ñooy jël nit teg la xoolal ci kaw. non du teg ci kaw sax. non. mais yow man man teguma ci kaw de man maa ngi ci suufu suuf. waa yow sa jëm bopp yaa ngi ci suuf mais xale jigéen ñoo la teg ci kaw seetaan naa sa benn euh, vidéo boo xamante sa benn fan si jigéen la mi ngi la kott di jooy jooy métti mu lay leer ni yow sax yaa ngi koy nax di di di. di di jooy di di bu daw yaram la quoi. Mhm. waaye wakaam la woon. si. waaw man jur woo damaa tiit sax. ndax daf la bett quoi. waaw mosoo ko xalaat. non c'était la fois. Hmm, la première fois loolu am. waaye après mu ñëw xam rek di jooy di tuur xéwal nii. si. waaye après affaire bi daf ma daf ma defoon choc nag. waaye mhm. choc carrément. si loolu mënta ñàkk. waaye nit c'est dafa dafa dafa xaw a daw yaram ko mm-hmm. nit ki bëgg la te yàlla tax. Mm-hmm. loolu dafa daw yaram. si dafa garaaw. parfois loolu bu leen dalee lan lan lan ngay sentir quoi nit ki gis la daw kort la. bon am na am na yenn nit yoo xamante ne peut-être que dañ siy gën a réer am na ñoo xamante ne dañ siy gën a sant yàlla quoi. Mm-hmm. am na ñoo xamante ne tamit peut-être que dañ si soo xamee àdduna dañ siy gën a wàcc sa bopp. parce que lépp nga delloo ko sunu borom quoi mais loolu noonu kooku def bu mu la tax a naagu quoi. Mm-hmm. bu mu la tax a naagu parce que di ko jàllale message tam si yenn acteurs actrices yi. dañuy mm-hmm. wàcc seen bopp. si c'est important. dañuy wàcc seen bopp quoi xam ne lii mm-hmm. day jeex. suba leneen lay wax suba. si keneen lay ñëw. tey ñun mun nañ wax xoos wala keneen ak keneen. mais après day jeex ah. la. bon maa ngi maa ngi gërëm maa ngi lay gërëm di remercier Khalifa xam nga di nuyu sama yaay di ko nuyu bu baax a baax mhm. di nuyu sama yaay bu baax mhm. waaw di ñaanal tamit sa maam mhm. Adja Kisaay Diouf fu mu tëdd xam daal na ko gënal fu mu jógee yàlla xaare ko àjjana bu baax a baax man moo ma yar muy sama maam di di gërëm waa Sénégal di gërëm ñëpp man moom duma ma lim pa man du ma lim sama yaay rek laay lim parce que man nitu nit ñi laa du ma lim kenn mu may mere mm-hmm. waaw donc euh, di la remercier ko soxna si kontaan naa trop <laughs> yàlla yàlla dolli jàmm liggéey bi rafet na mm-hmm. question yi tamit neex na ma vraiment xam man daal maa lay ñaanal ko am nga borom kër amaguma waaw ah, na yàlla may góor bu am yërmande ma amiin amiin moom la ñuy ñaan. waaw di gërëm tamit waa Déclic. que mhm. fii émission bi. Mhm. restaurant Déclic quoi. waaw macha allah teraanga yi bari na teral nañu bu baax a baax. nan <laughs> ku ma jël teg ma ci resto naan ma lekkal naanal tamit bëggoo jàmm <laughs> ah. <laughs> merci beaucoup Xos vraiment okay. a été hmm. xam nga comme ran bi dafa xat man bàyyi naa. non non mbokk yi li leen leen indi loon ci seen émission bi nga xamante ne mooy yoonu ndaw ñu dalaloon ki nga xam ne mooy xos bu idole di leen joxaat rendez-vous ci seen beneen émission bi nga xam ne mooy yoonu ndaw ànd ci ak Marina Rijal o micro réalisation caméraman ñu am ci ki nga xam ne mooy Khalifa Pisendoof ak beneen daanaan ak beneen xale bu nekk ci yoon jaa ngeen jëf